tribunal koy utala bërëb buñ ko teg ngir daal koy noppiloo ndax dañ koy téye wala dañ koy bàyyi mu ñibbi këram lépp dina leer du yàgg dara gannaaw ba nga xamee ni dina janoo ak enquêteurs yi keneen ku war a janoo ak ñoom moo di Moustapha Diop bu Walf TV moom nag itam dañ ko daal di indi la convocation mu wara wuy wuyu ji comme niñ ko defee ak Babacar Touré mu kéweloo moom nag joxuñ ko détail yu bëree bëri ca la nga xam ne moo waral boobu lepp convocation waaye nag ci alxames gi fukki waxtu ak benn ci suba jotee la moom Moustapha Diop war a wuyu ji ci commissariat central bu Ndakaaru Njaay mi ngi ñeel coalition Benno Bokk Yaakaar ca biir assemblée nationale ñoom nag seen majorité ga amoon ña koy perte ndax kat kii di Mariétou Dieng bokk ci parti bi di réew mi nekkoon député ba fa Idrissa Seck dal woon yabal moom nag tekki na ndombal tànkam ci boobu lépp groupe parlementaire li ko waral nag du leen lu dul waa réew mi ñoom dañoo génn ci boobu lépp coalition ni seen leader def nag ñoom ñëpp ci lañ dal topp ngir dal di a professeur Malick Ndiaye mi nga xam ne ab sociologue la woon ñëpp ràññee ko ci Sénégal moom nag moo wuyu ji boroomam liggéey bu am solo jot na koo def fii ci réewum Sénégal nekkoon sociologue bi daan yéete waaye itam daan yëkkati ay kàddu yu ama am solo di jariñ société bi yëpp wuy ji na boroomam équipe AGT News di ko jaale ay mbokkam te di ko ñaanal yàlla yërëm ko jéggal ko xare ko aljana mbokki internet yu AGT News abonné leen suñu chaîne saa su na ngeen di am ay xibaar ki jàngat yu wér